par exemple nit tek ko feulé daal di jël intérêt état jël patriotisme le patriotisme, dama fi profito di féliciter le président Boubacar Camara dafa am discours bu am importance bu mu wax c'est pas la personne de Diomaye qui est important fi toll ni c'est pas la personne de Ousmane Sonko qui est important c'est le peuple dafa am fu réew mi toll te loolu nak dañ fa soxlo loxo kenn ku nek tout un chacun war nga indi sa pierre dugal Il y a bi édifice bi pour mon parce que Sénégal mais les dignes fils du pays. les dignes fils du pays nous là, nit ñoo qu'est-ce que je vais faire pour mon pays. et Boubacar a toujours eu ce genre de réflexion. en non j'aime Boubacar en 2019 non non non non en 2019 il est constant. attends je veux vous dire moi j'étais là-bas Babacar était là-bas en 2019, il était le seul parmi tous ces grands noms dans le champ politique sénégalais à dire oui à son coup. Il était dans la coalition Sonko président. Oui. Il est constant. Il est constant. Non, il, a sa place. Il a sa place. Il a sa place là-bas. Et je l'ai toujours dit, ça, ça c'est une vérité historique. Non. Les autres, les Malgaques, tous ces gens-là, avaient quitté la terre pour mais, aller mais, rejoindre. Mais, mais, non, c'est ça la vérité. Non, pour, aller, pour aller rejoindre Macky Sall. Man rankay opposition yep yep yep yep yep ben nit dong la fi gisone ko xamantene. Et même même bok soxla won nako alhamdoulilah bi mako gisé mënu day ñew japp ci président Ousmane Sonko keur def déclaration parce que c'était la personne source bo xamne man wax deug yalla daf ma mës neex il est cohérent te borom xam-xam la muy Boubacar Camara man man façon mentalité yoy daf ma neex nit ki meun nga ko contre meun nga baña and ak mom mais day toll fo xam c'est l'intérêt du peuple mom moy nek au-dessus du tout monde qui prime moy primé si lépp donc oh, oh, oh, oh focus non nous focus. non non non vous savez. faut euh, focus pour demander ce pays le Sénégal il faut un niveau. il faut une immunité il faut éducation. éducation voilà public sénégalais quand vous parlez au Sénégalais il faut être. mais vu ces déclarations. bon je parle mais en réalité il y a une vide de subsistance politique hein. Euh, la la politique c'est un apprentissage hein, politique du caaxaan hein. Sénégal mo xaw a neex rek xumb ku nekk bëgg dugg si mais politique euh, lu ñuy jàng et c'est étape par étape. mais fu ko Ousmane Sonko jàngee ba war a tax bu Ousmane jàng ko gaay ñoo sonu Ousmane fi amul gis nga même tay Ousmane place bi taxaw mënon nga fa taxaw Ousmane a dit ce que les Sénégalais ont ressenti. Ousmane n'est pas issu de la classe politique. Il dit ce que vivaient les Sénégalais. Son injustice. Injustice, Et si bien injustice, l'autre côté n'ont pas été bienveillants s'il était bienveillant il était ni voilà la réalité aujourd'hui sociale non je je, rebondis sur euh, ce que disait tout à l'heure Douane par rapport à que euh, ngi ko Ousmane fan man ko jàngee ba tax euh, tey mu doon ki nga xamantene moy leadership ci politique Djangé wu ko fen parce que Ousmane Fila la juddoo fi la magué gis ñu ben école politique bi nga

politiquement. Wow. Les Donc... aujourd'hui sont là-bas. Les euh, sont là-bas. Hmm. C'est des grands de la chose politique sénégalaise. mais le c'est important quoi. non il faut il faut un courage politique pour pour non non parce que. Bougane léegi la koy wax dama la né réew mi moo tolloon fi nga xamante dañu dañoo soxloon kenn koo xamante ne dafay ñëw euh, jël son engagement jël son courage en main ne li ngeen di wax ñun gëmuñu ko wala li ngeen di wax bokul wala dëppool ak li nga xamante ne di réalité bi Ousmane loolu la ñëw mu comprendre né situation fi mu nekk dafa metti mu né askanu Sénégal li lañ di wax ay naxam bay la li ngeen li ñu di wax ak péril pendant 12 ans il était le seul à défier l'autorité

lépp nag boo wéetee ak sa bop xol ah. li nga xamante ne di discours Ousmane Sonko dikoy analyser da ngay da ngay xamné Ousmane li wax ni moy li nga xamante ne di réalité parce que mais les gens aussi sont là dans le champ politique mais on ferme pas les yeux c'est c'est ça on la soutient on la conseille mais on a droit de regard d'éveil et d'alerte mm-hmm. mais bo xool même ñi nga xamante ne mm-hmm. bi nga don tuddu sank légui ni bo xolé légui ni euh, li nga xamante ne moom di yoon bu mu jël moy lan Ousmane bu bu wax ne li ni mom mu ñëw jël le contre-pied comme Ousmane Sonko ni ko doon defee ak nga xamante moo di Macky Sall mais sauf que mais moom Ousmane Sonko ni mu ko doon defee am na différence ak ak ak ak ak. moo tax moo tax ma ne la c'est parce que tout simplement gisoon nañu Ousmane da koy def mu ci am ay résultats ba ñëpp jàpp ne léegi nii li nga xamante ne moom moo di mbirum politique foog ñu te parce que ñii dañu man amoon ay temps soo ma doon wax ci mbirum politique réponse ma lay ma siy teg mooy politique affaire affaire fen la politique du du ñuy wax dëgg mais demoon nañ ba gis ne léegi nii ñii ñi ils ont tendance maintenant à prendre mhm. euh, def politique jël li nga xamante ne moo di dëgg jiital ko ci li nga xamante ne moo di mbirum politique parce que ñii ñi dañoo yeewu léegi xam nañu booy wax ak ñoom xam nañu kii wax dëgg ak kan nga xamante ne waxul waxul waxul dëgg ah. et puis tey boo jàppee ne wax wax lu lu lu lu dëgg moom mooy tax nga mën a egg fi nga xamante ne moom foofu nga bëgg ci politique ñi ñi yow nañ léegi et puis les gens savent lire entre les lignes xam nañ kii wax dëgg ak nga xamante ne moom moo waxul dëgg et puis j'ai beaucoup apprécié euh, li Sénégalais yi doon wax ñenn ci Sénégalais doon wax par rapport ak surtout mais nan ban analyse nga am ci mentalité Sénégalais yi naan réew kenn mënu ko tabax ci benn fan ci benn bés donte que gis nañu li nga xamante ne mooy digg bi ak projet bi li mu wax mais ñoom ñoo si boppam ñoo gëm ni affaire yi du xëy rek xëy sotti. moo tax ma ne la euh, apprécier naa ko parce que man ki doon dégg sànq kenn ko doon wax ne euh, gouvernement bi bu réussir suñu réussite la. bu mm. échoué suñu suñu suñu échec la foofu lay waxee loolu man li ma gëm la parce que tey. mu nekk ñu mu nakar ñu ñu ànd ak ñoom bañ a ànd ak ñoom ils en ont encore pour cinq ans pour jéem a dérouler li nga xamante ne moo di seen politique ñu jàppale leen bu ñu réussir ñun ñëpp sentir ko ci li nga moo di suñu dundin loolu baax la si ñun bu ñu échecee ñun ñëpp a koy ah. que ñun nga xamante ne ñun ñooy ñun ñooy ñun ñooy euh, la course bi nga xamante ne ay suñu suñu loxo jotu ginnaaw ñii bu ñu échecee ñun ñoo koy gën a sentir xëy na ñoom nañ mun a am li nga xamante ne moo di seen seen dépense nañ mun a am lu ñuy suturloo mais ñun ñi nga xamante ne boo xëy suba ba ngoon am sax li nga xamante ne moom mooy dépense bi ngay joxe kër ga du la yomb ñi bu ñu échecee kenn waru leen ñaanal ñu ñu échec nañ leen ñaanal rek ñoo am réussite ils vont pas rester au pouvoir ñoom bi ñu fi jógee nañ bàyyi fii réew mi keneen ñoom fi nga xamante ne foofu la la ñu tubaab yi rawee gis nga ñoom bu amee euh, menace bi nga xamante dafay peser ci réew mi moo xam nga nekk ci opposition wala

dañu war a toog ñu waxtaan mais d'une façon très sincère. mais doyen dogguma la niveau boobu ngay wax noonu citoyens yi ñu gis ñëpp ak ñu tàllal micro am nañ ko mais pourquoi pas nos hommes politiciens moom euh, ñoom mënuñu ko am parce que ñoom ñooy def ay tir di jëmale ci projet bi donte que dañ doon wax ni amul mënuñu fi présenter projet ñu génn pro présenter ko ñu naan léegi dañ ko jënd à la dernière minute lañ ko sàcc dañ ko plagier ak yooyu noonu est-ce que tamit loolu euh, sëgam warul ñi nga xam ne moo di citoyen citoyen lambda bi est-ce que war na war homme politique boo xam ne intérêt réewam la a doxal quand même. monsieur war nga may ma daaneel foofu après nga jël parce que dama bëgg a rebondir ci euh, li ngeen doon wax sànq léegi ni par rapport ak Boubacar Camara gisoon naa ci opposition bi mom kessa la fa gis comme ki nga xamantene ne xëy amone mën ñeneen ñoo xamantene ne nañ fa mais man mom la gis ki nga xamantene ne na euh, pour teewee li nga xamantene modi présentation et ça c'est ça c'est à magnifier parce que c'est pas parce que man ci opposition bi la nekk que buñu woté ci li nga xamantene mo jëm ci politique publique de la de la nation de dem teewee fofu non mm. loolu c'est un peu mal comprendre li nga xamantene modi moo euh, état wala li nga xamantene modi les les les enjeux amna kenn ko xamantene apprécier na son approche mu ngi yoon ci ci ñu doon amal panel bi je pense que il répond au nom de.